jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi déglu rajo réew mi FM quatre vingt point cinq ñu leen di euh, nuyu bu baax a baax Abdou Khadre Seck moo nekk ci euh, micro bi Adama Diallo nekk ci wàllu technique bi ñu nuy sunu mbokk auditeurs yi ak sunu mbokk auditrices yi mbokk yi tey nag ñu dellu am mbégte daal di dalal Alioune Sané ñu gën koo xam ci To Sané. Euh, muy def euh, politique bokk ci euh, fédération démocratique des écologistes du Sénégal moom la ñu invité tey moom nag mu nekk fi nga xamante ni moom mooy ci commune bu Médina waaye tamit fédération bi nga xamante ni ay Aydar moo ko jiite moom moo leen nekkal fii ci région de Dakar danañu waxtaane nag ndax moom danañ waxtaane ci suufu ndakaaru ndax suufu ndakaaru ku ko tudd sa xel dina dem ci lébu te nag euh, lebu la fukki penc yeeg ñaar xam naa dinañ si ñëw ba mu gën a yaatu ndax day faral di wax ne suufu ndakaaru ñenn ñi ñoo jógee euh, si seen yeneen dëkk seen dëkk maam ñëw aaki moo seen suuf xam naa danañ ci wax ba mu gën a yaatu danañ wax tamit ci Médina ndax xam ngeen ne Médina bokk na si quartier boo xamante ni tey euh, siiw na lool lool lool waaye bi pandémie bi commencé dañoo gis ne dafa am yenn ci ay ndaw ay jeunes Médina yoo xam ne jàppante nañ fi ak yoon ay yoon yoon bañ tegoon leen loxo mujjeen ñu bàyyi leen giite ngaas googu noonu lan moo waral benn eh, ndaw ñi doon doxalee noonu danañ ci wax ak yeneen ponk yoo xamante ni maanaam aju na si toosaane eh, ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay jëli waxtaan di waa rajo bi yëpp. Ah. nuyu sa technicien bi nuyu ñëpp vraiment di rafetlu dalal bi ma dalal fii tey. Eh, to Sané yow tamit ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax ndax xam nga ne dañu amoon benn invité. invité bi ñu njëkk a am sax kooku euh, li tax ñëwul dafa def contact ak benn euh, benn député boo xamante ni dafa amee coronavirus euh, comme dafa am ak moom contact nag dernière minute si lañ changé kii boobu yow tam ñu yeex yëgal invitation bi dernière minute nga bàyyi sa yitte yëpp daal di ñëw pour gunge ñu si émission bi loolu tamit ñoo ngi koy rafetlu bu baax a baax waaye li si ëpp solo xam nañ sa sa pertinence ak sa taxawaay ak yu demee noonu léegi Tosané. li ñuy njëkk euh, waxtaane mooy Médina ndaw ñi nekk Médina ñenn si ñoom gis nañ ne bi couvre-feu bi commencé am na ñu si tegoon loxo problème bi dégg nga ko lan moo ci sa xalaat. waaw oh, man dama njëkk euh, damay wax ne d'abord su ma rafetloo invitation bi di ñaanal ñi nga xam ne feebar bi jàpp na leen coronavirus bi yàlla na leen bàyyi mais jombul kenn. mun na dal ku ne yow mii sax xaw ma ndax am nga corona wóoruma <laughs> waaw invité nga ma daal xaw ma ndax jox am nga corona wóoruma mais nañ ñaan daal yàlla musal ñu si parce que mi ngi def ay mi ngi def ay jé jéego yu rëy ay jaloore si àdduna bi ah mm-hmm. ok lii xew Medina nag mooy si wàllu couvre feu bi euh, ñooñu dafa nekk côté boo xam ne mooy côté Damels mm-hmm. te Medina boo ko waxee presque mun nga ne vingt quartiers la ou euh, du moins euh, y plusieurs quartiers moins de vingt quartiers donc Euh, suñu ne Médina nag boo tuddee même côté boobu ñun nga tudd rek benn la turu Médina la ñuy wuyoo mais ku ne xam ne ne xale yooyu juguñu woon pour défier police xale yoo xam ne dañu doon jóg di kokkanti di foo mais nee leen man wax naa ko si benn vidéo yéen ko tal wax naa ko si YouTube yéen ko tal ay kokkali ñiy jóg di liggéey di leen liggéeyal di leen aar ngeen di lu kokkali man rafetlu ma ko condamné naa ko fermement wax seen waajur yi boo leen jugul seen doom yi demee mun lañ leen indil dañ leen toroxalan ah. kon condamné ko fermement bon deuxième fois bi bi ñu déggee xale yi di jubilé dafa am lakk bu am rue 22 benn dibiteri bu doon lakk. Hmm. gars yi di xaar sapeur pompier yi di xaar ba sonn sapeur yi ñëwuñu ñoom ñu gën xale yi fay lakk bi parce que nag dañ koy fay bu ñu ko fayul mu mu mu song fépp ba ñu fayee lakk bi bi sapeur yi ñëwee ñu créé leen ne leen yéen bu ñu leen doon xaar dëkk Médina yëpp lakk na noonu la demee mais ñun Médina ku ñu xam-xam ne. mënuñu nekk premier quartier de Dakar maanaam ñun ñooy Ndakaaru kenn gënu gënuñu yaru kenn gënuñu yiw kenn gënuñu ñu xam état. kenn gënuñu xam lu baax mais ndaw ñi wane wuñ ko de. non si nga fokk mais dama ne ñi fay lakk bi loolu leen wooyee. mais bi gis. waaw non dama ne non non xaaral dama lay laaj ji li baax daal ma waroon laaj sax mais dinaa la laaj parce que fi mu ma dugal du ma ko nangu dama ne ñi fay lakk bi yow noo leen tuddee ay sapeur pompier. déedéet non sapeur pompier man laa leen di wooyee ñun ay sapeur pompier la ñu am Medina xale yi génnoon di kookuli fële seen kër da nga leen dëggati seen waajur yi tey nañ leen dañ doon daxante policiers yi di foo mais ñun duñ defee police ñun ñoo xam police ñun ñoo gën a xam police ñëpp balaa fen di am police ñun ñoo dëkk police. waaw mais dëkk gendarmerie non xaaral la ko def ñaari yoon ba ñett. déedéet ñaari yoon la. xoolal euh, gisee. ñaari yoon la euh, yow euh, Tosaane. bu ma woowee gisee. Tosaane. oui yow xam nga ne tey couvre-feu bi ba mu commencé deru Medina ci adduna bi yëpp. ci biir réew mi bitim réew yëpp yëg nañ taxawaay bi yenn ci ay dama ne dama ne bul bàyyil Medina Medina defuñu dama ne wax naa la luy xewoon Medina liñ liñ fi gis kay ñiy dàqi police di sànni xeer xam nga fan la te yow yaa dàq wax ñëpp wax ko fan lañ doon sànni xeer police Medina dañuy sànni xeer police fi ñu doon sànni xeer police xam nga ko yow yow dara rëccu la si dëkk bi comme ni nga waxee yow moom xaw ma kan même yow mii réew mi FM yow moom réew mi moom euh, ñu fi doon sànni xeer. ñu sànniwuñu xeer. léegi tout ça def yow ñu police nous avons des parents sapeurs-pompiers et nous sommes nous vivons de proximité avec la police gis nga xale yooyu doon def loolu rue côté Damels hmm. ñoo dëkk ak cité police renseignements généraux ñoo dëkk ak police ñun ñoo dëkk ak camp Abdou Diassé ñoo dëkk ak gendarmerie Médina ñoo dëkk ak commissariat Médina Rebeuss Gueule Tapée Plateau ñun police la ñu juddoo day xam police loolu defuñu ko pour xale yi juum nañu nag condamné nañ ko fermement képp kuy responsable Médina yaa xam responsable politique responsable religieux artiste homme de culture ñëpp condamné nañ ko rafetul parce que ñoom ñoo war a joxe exemple parce que koo xam ne yow yaa war a joxe exemple Sénégal yëpp ñëpp wala roy am na loo xam ne ñaaw na ñu koy gis si yow ñu ngi ñu ngi jégalu ñëpp comme ni ma ko waxoon. waaw lii daal mooy mooy jégalu ñëpp. jégalu bii daal ngeen war a def. waaw mais ndax xam lu tax gisee. yow Toosaan. waay waay yow léegi léegi <laughs> léegi. too euh, tey daal gisee moo demee gisee je vous salue dama lay expliqué benn affaire et puis baal ma sax si gisee bi ngay wax sànq. ba léegi euh, ma jaale ko frère am frère am moo gaañu. maa ngi jaale gisee parce que temps yi moom tamit li ko daal metti na fan yi yëpp dafa am. dafa am dese këram vraiment ñu ngi koy jaale di ko sigil ndigaale. d'accord ñaan ñi fi génn àdduna yàlla na yàlla xaaree àjjana profité si tamit ñaanal xalif général di Ndiassane bi nga xam ne Ndiassane Seck bi gaañu profito aussi Cheikh Ahmed Tidiane yàlla na ko yàlla xaare àjjana kilifa gu mag ak Serigne Pam Malick ak Serigne Pam Malick vraiment de valeur koo xam ne seede bi mu def sama maam Ibrahima Diop parce que dafa dëkk ñëwoon na suma kër maam bi dalal ko amoon kóllóore ak bàyyam sëñ Babacar vraiment seede bi mu wax ñëpp dégg ko ñëpp dégg nañ ko keroog rek saa fait une semaine ma si waxtaane ni mu ne ma yow Pam Malick seede bu mu def sa maam war nga war nga dem seet ko gis ko waxtaan ak moom ma ne ko jàpp semaine bi lijjanti loolu ñu dem seeti ko wallahi yàlla def mu génn àdduna si diggante bi muy bàyyi ma ndooy bu cëriñ mm. maa ngi koy jaale euh, njaboot gi yëpp wala euh, Tosané mm. yow yaa jiite euh, fédération démocratique des écologistes du Sénégal ci dakaar waaw département Dakar ak Médina département Dakar ak Médina élection yi sax yow lañ tabboon nga nekk tête de liste si Dakar département Dakar mais malheureusement xam naa danañ ci ñëw. Euh, mais malheureusement comme tout candidat tu gagnes ou on te gagne et j'en suis fier man gagné ma mais nag <laughs> xam naa ne xam naa ne bu doon def lu baax mooy tax ma gagné may gagné. waaw non bu doon saxal garab moo tax ma gagné maay gagné. bu doon dëkk si dëkk bi moo tax ma gagné maay gagné. d'accord mais nag xam nga fii léegi mais yow yow réew mi yaa ma gën a xam nu mu yow mi nekk si réew mi yaa ma a xam nu réew mi demee waaw mais euh, danañ ñëw ci loolu. Hmm. danañ ñëw ci ci loolu. Hmm. mais dama ne la dafa am loo xam ne foo ñu leeral ko doo ko jàll. ndax yow boo gisee ma lay laaj ci Medina xam naa fi nga def Medina xam naa ku bëgg Medina nga xam naa sa taxawaay si Medina euh, bi ñuy li nga xamante ni moo xewoon Medina xel yu bari demoon nañ euh, si yow Medina nga juddoo fi nga yaroo fi nga defee lépp fi nga fi nga lijjantee doon def élection local far Bamba Fall gañe la foofu gañe gu métte métte xam naa tamit danañ ci ñëw léegi yéen bi couvre-feu bi njëkkee commencé too saane Euh, bëri woon na ci biir réew mi nag ay ndaw yoo xamante ni génnoon nañ mais yéen Médina da ngeen see gënoon fës ministre de l'intérieur daan ne loolu danañ ko saafara ci bis bi si topp euh, ñu jàppaat ñu jàpp ay ndaw Médina Médina ñu jàpp fa ay ndaw yu baree baree bare après si lañ leen mujj si lañ leen mujj bàyyi. naa la wax benn secret si Médina boobu ngay wax gis nga ndaw yi ñuy jàpp yu bari ndaw dama lay wax na jiiru baax daal euh, xam-xam tey nag. am na loo xam ne bëgguma ko woon wax nag mais waxu mbooloo tontu mbooloo gis nga Jili Baxtaar jeunes yu bari yi nga gis Medina man si penc laa juddoo cëriñ fa la jumaa fukki penc ya ñaar yi nekk ñun dañ ñu yar xaaram wax la. bu fi stigmatisé non xaaral dama lay wax lu leer xaaram wax boo jëlee atelier uude boo xam ne day def cinquante personnes yu fay fanaan si mbedd bi la ñuy nekk ba guddi boo leen ramassé ne Medina nga leen ramassé dama ne Medina dañu bari ay xale yoo xam ne si région yi lañ jógee nekk si atelier uude yi mu neex mu naqari alxaq walaw kaana mu ran alxaq walaw kaana mu nafsi moo fa am te fa war a deñ stigmatisation yi non du stigmatisation yaa ko wooy noonu dëgg laay wax dama ne li may wax demal vérifier ko atelier ouri yi fi nekk yëpp seen njaboot yaa ngi fa dañ fa indi seen i doom yi benn atelier buy def vingt personnes su ñuy liggéey bëccëg ñuy liggéey guddi suñ leen gisee si mbedd bi raafal leen wala soral leen ñu ne waa Medina la mais ñooñu luye ay kër dëkkuñ ci kër yi déedéet ñu si bari dëkkuñu si bon am na ñu dëkk si kër mais ñu si bari ñu laaj leen ñuy fanaan si atelier yi def leen enquête li may wax ñi ngi may dégg samay samay xarit lañu samay mbokk lañu mais nag bu wax jotee ma wax parce que kenn luñ tiñaal ñu koy seetaan parce que si suñuy njaboot dañ leen téye ku amul foo fanaan toog si mbedd bi maire wax na ko dégg naa ko mu ne am na ñuy jógee plateau di dox pour ñibbi Grand Dakar wala ñibbi HLM Medina la ñuy jaar dëgg la Médina c' est le premier quartier c' est le cœur de Dakar. kon da ngaa jàpp ne yéen li ñu leen di tuumaan lépp toosaane amut. non bu dee Médina dëgg dëgg. Médina koo xam ne fa nga yaroo. Hmm. ami kilifa. Hmm. ami chef de pénc. Hmm. am na loo xam ne da koy jomm kenn du la ko wax parce que man mii man mii nga xam ne maa leen mag téeméeri junni yoon te gënuñu ma dëkk si dëkk bi ñaax seen baay ñoo maase. mais loolu man heure tëdd ma tëdd. mais noonu loo noonu loo dundee woon loolu nag. mbay am gàcc. am gàcc parce que dégg rajo yi di wax Medina télé yi di wax Medina ma am ci gàcc. kontaanee ko sama classe gi wax Medina. yow yow si nga dëkk yow loolu rek nga doon xaar yow loolu rek nga doon xaar pour sànni too sànne ay xeer mais du yow rek ñun dañ ko merlu sànni nañ xeer Youssou Ndour sànni xeer euh, maire bi Bamba ndeysaan dama ko yërëm sax. Hmm. mais Bamba Fall tamit danoon layal ndaw ñooñu rek. mais wax na dëgg Bamba xam na lu muy def dafay dof troisième fois bi ngay wax. Hmm. mooy ba ñu ñëwee jël kaa ñi nga xam ne dañ leen quarantaine hmm. ñoo xam ne kër googu dañ fay jaay ndékki koñ ba yëpp dafa ndékkee ñu jël leen quarantaine yóbbu mhm. li Bamba expliqué mhm. waa léegi bi ñu leen gisee ñu indi leen dara jotu leen mhm. ñoom ñu jubilé parce que ku si nekk yaa ngi doon xalaat sa bopp mais loolu mooy indiscipline indiscipline notoire boo xam ne ñenn ñi njort nañ ne loolu la noo xam nga da nga dégluwul li ma la wax dama ne waaw non dégg naa li nga wax non dama ne waaw dama ne déglu bu baax li ma la dama ne xam nga ku jël sa mbokk ne dafa dafa dafa dafa corona te nga jege woon ko wala nga lekkee foofu boo gisee ñu indiwaat ko ne coronaawul dama ne man moment boobu sama yoon nekkul si li ngay xalaat wala ma sàmb lu mu xalaat c'est pas mon problème soo rafetee xalaat soo ñaawee xalaat je j'en ai mais man je suis content parce que corona wu ma. d'accord euh, voilà. mais xam nga toosaane tey ndaw ñooñu ngay wax dafa am benn kër boo xam ne. dañoo njort ne dafa am ko fa am corona. amul njort dañu leen jël yóbbu. waaw noo dafa am ko fa am corona. ñu jël ñenn ñi nga xam ne njort nañ ne dañoo am corona yóbbu leen. yóbbu leen yëpp inquiet. mais bi ñu leen mais ñu leen testé. waaw indi amuñu corona. ñu leen di indi. waaw lan moo ci yoonu askan wa ba ñuy génn di jubilé. askan boo xam ne ñoo ñoom ma dëkk. fa la ñuy lekkee ñooy yendu ñooy fanaan ñoom ñu ngi doon tëdd du ñu nelaw di xalaat ndax ñoom corona wuñu mënuñu nelaw yow buñ boo bu ñu jëlee man yow jili instant bi bu ma génnee si studio bi suba ma gis ñu quarantaine la waat naa si yàlla balaa may nelaw mooy ma dégg ne car euh, positif ou négatif wax dëgg yàlla dama ne nit dañuy wax dëgg dama ne xam nga lan moo am solo ñun amuñu ay xale yu indiscipliné amuñu ko. mais moom lañ leen tuumaal yéen waa. waaw ñu ko tuumaal ñun gënuñu yaru parce que bu dee yar gënuñu yar bu dee dëkk si dëkk bi gënuñu dëkk si dëkk bi bu dee bëgg lu baax wala xam yoon gënuñu ko xam ñun kuñ si jiitewul jiitewuñu si te mu leer loolu xanaa soxor wala bon wala bëgg lu bëgguma waxee nii sax mais nag des fois damay sës de gënuñu bëgg lu baax gënuñu dëkk si dëkk bi gënuñu xam lu baax ak yoon nañ ñu jox cër erreur am na ay gone dañuy erreur mais dañ leen di dellu yar leen rappeler leen alors te nañ leen boole si njaboot gi fu waay nekk def leen sa njaboot nga boole leen boole leen sa njaboot xam ne rek erreur la njaboot yi dañuy erreur Jurbel gis naa fi ay xale yuy dàq police di leen sànni xeer danga ko wax Touba gis nañ fi ñoo xam ne dañ ne bu leen génn ñu génn nga dem yeneen région loolu moo fa am da ko wax nga bëgg a lakk takkal takkal pot Medina pour lan waxal li nga xam yëpp yow li nga xam yëpp boo ko waxoon àdduna tukki doo ko wax xam naa ne doo ko wax nga bëgg ma langal Medina rek du ma ko nangu waa Medina dañu am yar Medina comme ni koy waxee ay ñun exemple Sénégal la ñu ñun fii ñoo war a joxe exemple bi fii. mais si coronavirus bi euh, début bi ma wax dëgg yàlla joxe wu leen fi exemple. xale yi xale yi waaw. ay xale yu ndaw xale yoo xam ne gis nga Touba ba ñuy manifester ñan la ay xale yu ndaw la ñu ñooñu ñooñu boo leen bëggee jàppee Touba da ngay tooñ waa Touba ay xale yu toll nii am douze euh, sept ans huit ans douze man du ma jàppee ñooñ Touba Touba dama leen jàppee kilifteef ga fa nekk. d'accord léegi euh, jërëjëf Tosané Euh, ñuy fàttali ne moom ma ngi bokk ci euh, fédération démocratique des écologistes du euh, du Sénégal ñu ñëw yéen lu jëm ci danañ ñëw ci li nga xamante ni tey mooy mbirum coronavirus ba mu ba mu gën a yaatu mais comme yow da ngay da ngeen di yëngu yéen écologistes yi lu jëm ci mbirum environnement. am na benn loi boo xamante ni dañ koo voté mu jëm ci euh, tere lépp loo xamante ni jëm na ci ay sachet plastique mais dañu gis ne ba léegi ni daal nit ñi ñoo ngi koy sànni ci mbedd mi euh, lan la mën a yàq ci environnement bi. lu bari <coughs> man sax am na lu ma vérifié ba dox ko xam ne sachet yi mi ngi am ba léegi dox naa ba gis kuy jaay sachet ma teg si sama loxo mu wóor ma nga xam ne kenn du ko weddi te maa ngi koy wax fii tey. sachet li muy yàq dafa bari day yàq suuf si day rey jur gi boole si ñiy lakk mbalit lakk boobu ñuy lakk mbalit bi saxaar boobu to dafa toxique maanaam dina yàq lu bari si doomu aadama jigéenu biir yi mun na am lu muy def si doom yi ñu ëmb donc sachet yooyu kenn du ne la baax na àdduna bi yëpp ñëpp d'accord nañ ne baaxul ba pare gis naa ñoo xam ne dañuy jël lu tàng di ko si def di si def ay kafe wala di si def ay lekk sachet yooyu dafa toxique boo ko jëlee def si lu tàng day jël lu bon lu nekk si sachet bi tàngaay bi da koy jël hmm. après nga koy naan loolu nag après bu yàggee fukki at ñaar fukki at ñu ne kii dafa feebar xamuñu lu ko dal voilà fekk ne sachet yooyu mu doon jëfandikoo moo ko lor. yéen écologistes yi lan ngeen ci def yéen ñi nga xamante ni da ngeen di xeex lépp lu jëm ci mbirum environnement. no bi ñu falee ay daar ministère de l' environnement ñun ñoo njëkk a proposé loi boobu mu mu arrêté sachet. Euh, yi nga xam ne 30 microns. parce que tamit bu ñuy wax sachet ñun yamuñu woon si sachet maanaam lépp luy kaw mais doo ko doo ñëw rek rek ne lépp day arrêté mais li nga xam ne mooy sachet 30 micron mooy sooy natt. ok 30 microns yi waaw 30 bi parce que moom lañ gis moo ëpp si àdduna bi man si si Sénégal. man hmm. wër naa région yëpp plusieurs fois. mais fooy dem si région yi région de Kaolack région de Diourbel région de Fatick région de Thiès région de fooy dem booy dugg si sachet yooyu ñoo la accueillir parce que sachet yooyu day naaw. Hmm. oyof boobu mu oyof moo ko yóbbu si géej gi yóbbu ko si àll bi yóbbu ko fépp nga xam ne boobu mooy bi gën a lor ñun ba ñu ñëwee ba ay daan ñëwee ministère boobu la njëkk a proposé pour ñu tere ko. mais ministère bii fi nekk tey ak li ñu proposé ñoom dem na beaucoup plus loin gis nga ñu ngi wax ci casse euh, à jeter yi di proposer quatre c'est mieux c'est tant mieux tant mieux mais ñun dañ ko bëggoon def par étape parce que loo gis ndànk-ndànk la ndànk-ndànk mooy jàpp golo ci ñaay. waaw mais est-ce que tamit euh, tey bala ngay proposer loi tamit boo ko proposer xanaa di nga indi loo xamante ni lii boo fi jëlee lii da ngeen a jàpp leen ci lii. waaw def nañ ko ku mel ni Modou Fall bi nga xam ne Sénégal propre gis nga mu doon wane ay sachet en en en papier. tey boo demee si yenn structures yi nga xam ne bugguma def publicité ñi nga xam ne mhm. ñu ngi jaay ay supermarché yooyu. Mhm. tey ñoom ñu ngi joxe ay ay sachet papier. tey boo gisee jaaykatu kafe yu bari ak café Touba yooyu tey ñu ngi jaay ak taasu papier bi. Mhm. te loolu taas bi sax yàgg na fi. mais est-ce sensibilisation bi desul aussi. waaw mais c'est xam nga sénégalais dafa am loo xam ne soxlootul ñu leen koy wax. wax dëgg yàlla bu ñu ko waxee benn ñaari yoon nit war nga dégg luy lakkee bu si dugal sa loxo pax boo xamul lu si nekk doo si dugal sa loxo dama ne waxtuma laa nga xam ne jaana fa nekk dañ ne lépp luy plastique bu leen naanee lu tàng lépp luy plastique bu leen ko naanee lu tàng bu leen ko taal bu leen ko lakk bu bokkee si mbalit bu leen ko lakk baaxul si seen tool yi parce que day yàq suuf si baaxul si seen jur yi yéen ñii éleveur. baaxul ci géej gi. baaxul ci géej gi parce que mun na fa def ay ati at di lor géej gi rey jën yi waaw boo dematee ba sa tool jurutul jën yi manqué jaww ji pollué nit ñi di feebar di dee xale yi di juddu loxo bii mel nii bët bi jaar fii tànk bi jaar fii mais xanaa nag wax dëgg yàlla nga war a nekk nit man ñun du ñu jël yat di leen dóor. mais dañuy wax li ñuy wax xanaa bu ñu la waxee benn yoon dëgg war nga ko dëgg gis nga nit dëgg sax dañu naan ku koy wax wax ko benn yoon parce que bu dee nit moo lay déglu boo ko waxee benn yoon soxlawul nga koy junjaat la répétition est pédagogique certes mais booy wax boroom xel benn yoon boo ko waxee dëgg na li nga wax jarul nga ko koy répété. d'accord liggéeyu Ali aydaar ci loolu lu mu. magnifique il fait un excellent travail moo tax Macky Sall dénk ko ministère de l'environnement après dénk ko ministère de la pêche mais yooyu yëpp gis nga coono yi ñu fi amoon mais amul no problème mais aujourd'hui ñu dénk ko l'agence pour la reforestation et la grande muraille verte mmh. soo xoolee ñu ngi def benn liggéey bu am solo tey mun naa ne par exemple tey dañu dañuy dem si àll bi xool ñi nga xam ne dañ fa nekk ñu ne leen yow da ngay am toolu kër toolu kër mooy sa kër comme ni ma am Medina tey man am naa ay kaani am naa kaani am naa piment vert am na piment rouge am naa oignon vert ah ñeneen boo demee am na yoo xam ne ñi am tomate ñi am poivron li nga doon jënd yu bari tey yaa ngi koy bàyyil sa kër yooyu dañu bëgg a nit ñi am ko ba pare mu doon bio yoo xam ne amul produit toxique te yow ndox mi nga koy arrosé xam nga ko du ndoxu foos du du du du produit bu bon. léegi lan la si euh, euh, Ali Haïdar li defagoon. yooyu mi ngi si mooy toolu kër dafa bokk si projet euh, agence bi. am na loo xam ne mooy reforestation mooy faxe ba àll bi ñëwaat fépp parce que àll bu ñëwee lépp ñëwaat àll moo yor yëpp jiili mhm. garab si la yëre jóge jiili garab moo ñuy jox air bi ñuy noyyi jiili garab mooy indi mooy indi naataange mooy indi taw garab mooy jox ñu lu ñuy lekk garab mooy duddul suuf garab mooy tax yamba yi ñëw yamba bu amul woon fekk une semaine àdduna tukki garab mooy tax sax yi dund garab mooy tax gunóor yi dund maanaam àll yàlla balaa mu ñuy sàkk loolu la njëkk a sàkk teg fi Touba garab la mooy garab sa àjjana d'accord léegi loolu lañ dénk euh, Ali Haïdar léegi euh, li ñu nemmee ko tamit ñu jaaree foofu mooy euh, li nga xamante ni mooy géej gi Euh, ci ci ci ndakaaru ak ci yeneen gox mais mën nañuy wax ci ci dakaar ci littoral bi fan yëpp gis nañ coow li nga xamante ni moo fi am ñuy wax ni ay nit ñoo koy ñoo koy brader ñoo koy yàq danañ dem ba nga xam ne euh, Dakar pour nit ñi nooy géej gis géej dana dana jafe wala ñu am benn espace boo xamante ni sax danañ ko danañ fi def ay garab nit ñi bu bëggoon a toog noppalu sax dem toog fa wala bu ñu bëggoon a benn air euh, bradage boobu ci littoral bi ñuy wax dakaar yow lan moo ci sa xalaat. waaw dañuy nangu dara. gis nga ndakaaru dëgg la ndakaaru ñëpp la parce que nag ñi naa ndakaaru jal jóob njaayeen yi moom balaa may dee ñu ne ndakaaru njaay Sénégal njaay gaynde njaay xaalis njaay boo ne bukki ñu bañ ko mais nag ndakaaru am na borom ndakaaru dañ leen ko liggéeyal senegal dañ ko liggéeyal te bu ñu gën a gore kenn ku nekk fa nga dëkk da nga si fier kon ndakaaru bi nga xam ne suuf lu mu fiy jaar jaru fa fenn ndakaaru bi nga xam ne dafa féex am géej am jën ndakaaru bi nga xam ne mooy capitale du Sénégal waa ndakaaru waruñu gën a gore leen la fi waa ndakaaru bàyyi tubaab yi fekk ko fi bàyyi ko fi ñoom waruñu ñëw di ko jël gore di weesuwul loolu baadoolo la mu bokk daf si bëgg a ëppale waaye doo fekk ñu liggéey daan seen bakken tuur seen deret ba liggéey ko yow xeexoo ñafewoo ñan a ko liggéey waa ndakaaru ñan ñooy waa ndakaaru yi ku xamul lébu yi xaw ma ku ñu xamul mais xam nañ lébu. laakoon faakoon yaakoon ah, kan moo xamul lébu lawoon fa na woon. léegi yow yow li ma la laaj gaal yëgoo kan moo xamul lébu. ñi ñi doon nappi ñi ngi nappi ba léegi yow bàyyi di ma laaj ñen ñoo moom ndakaaru li may laaj ñëpp ko xam. kan moo moom Dakar ko ko mais li ma la laaj ak li ma la laaj li ma la laaj ak bradage du littoral euh, dafa sorianto ba déedéet soriante wul de di ko littoral ñu koy def ñan ñoo ko def tubaab yi dañ ko defoon man si man je fais la plongée sous-marine moom laa am formation dëkk si géej ñun nous sommes un peuple de mer ña doon ñu seen maam yi doon nappi ba léegi ñu ngi nappi Limaamu Laay dafa daan nappi ay sëtam a ngi nappi ba léegi ñi fi ñëw bëgg a jël accaparer littoral bi ñan la laay Wade nag Ablaye Wade wax dëgg yàlla def na fi lu bari loo xam ne àdduna yëpp wax nañ ko te loolu tamit waru ko woon def ab Ablaye Wade Ndakaaru lu dëkk xam na lu fi xew Doudou Wade sama jarbaat la sama sama maam la mun naa ne ah mbokk lañu am na loo xam ne ruus naa sax. di ko lan la def ab Ablaye Wade moo joxe littoral bi yëpp joxe suuf bu Sénégal yëpp Ablaye Wade daa ko joxe loolu nañ waxante dëgg Ablaye Wade moo joxe suufu Ndakaaru yëpp. mais il faut nit ñi dëkk si suuf si. waaye ndax littoral kenn du fa dëkk loi bi lu mu wax fa fa uul bi di yam maanaam bu géej gi jógee fu muy yam 100 après foofu nga war a tabax soo passé 100 mètres defuñu ko. te boo fa defoon sax loo xam ne comme loo xam ne océan ñoom nit ñi dañu dem di fa plongé comme fi ma jàngee plongé muy association nga xam ne ñëpp ko bokk ñu ne xayrul mais jël ko jox ko benn nit mu moom ko dëkk fa doomam yi yeewu juddoo fa defe seen maama liggéey fekk ne liggéeyul dara seen maam liggéeyul dara ay maamu liggéey ba pare nga bëgg ko tuumaal Ablaye Wade te Ablaye Wade ma ko lu am la mais avant Ablaye Wade am na yeneen président yi yow ne yow homme de presse nga journaliste nga avant Ablaye Wade am na ñu ñu am na ñoo xam ne avant Ablaye Wade ñoo ngi dëkkoon ci littoral bi dama xam nga fal loolu tamit xam nga laa fi fekk littoral bi man xam nga lu ma fekk. Mhm. USTD mooy club corse su fële sur la corniche teeru bi yàggu fi Ablaye Wade la Casino Ablaye Wade la Radisson Ablaye Wade la Teranga mooy tel hôtel bi nga xam ne fii lañ ko fekk te piscine bee nekk ci géej gi hôtel bi nekk na li nga xam ne gan yi bu ñu daan ñëw président bu fi ñëw fa ngay dal mais liñ fi fekk yëpp. jëlal teeru bi ba sës Ablaye Wade la ak doomam loolu Sénégal yëpp xam nañ ko yaa ma ko gën a xam yaa ma ko gën a xam boo xemoon sax mu jox la. léegi lan moo tax euh, euh, maanaam euh, ñuy baraade littoral bi même ab Ablaye Wade ak jamonoy mag Sall yéen est-ce que bokk ngeen ci ñi nga xamante ni tey ñoo ngi koy xeex. non ñun lu ñuy wax ñun dañu ne l'environnement naturel maanaam boo jëlee géej littoral suuf see xeer yi fa nekk ndox mi. loolu yëpp dafa am njëriñ njëriñ boo xam ne boo ko laalee rek après day feñ mooy li ñu wax l'écosystème boo ko laal rek day feñ foofu soo fay def da fay def loo xam ne du laal dara lu mu fa fekk doo fa def ay tabax comme ni ñu ko tabaxee nii tey xam nga ñun yàgg nañ wax protégeons l'environnement protégeons l'écosystème mais tey bu ñu demee ba politiciens yi jóg ñëpp jóg ne ah lu ëpp tuuru ba ñu ñëw bay laal mamel lu ëpp tuuru bu nit ñi demee ba koy fekk si nañ ñu lañ doon wax rek la ñuy waxaat ñun li lañ doon wax fa lañ ñu fekk si ñun écologistes yi ku fiy wax di jaay xam-xam la ñu doon wax nga ñu fekk si bu la neexee nag journalistes yi presse bi yow lañ dégg mais dama ne fii ku fiy jaay xam-xam di fi wax si littoral wala di fi wax si environnement ñun ngay waxal ñoo lu si njëkk téeméeri junni yoon ñun mooy suñu liggéey waaw mais mais euh, mais tamit euh, am na ay lébu yoo xamante ni tey ñoom tam ñoo ngi dëkk ci ci littoral bi non am na ah. am na Mhm. am na fa boo demoon yow am na fa boo demoon wa wakaam yow am na fa. doo bokkul. Mhm. c'est-à-dire dama ne. lébu géej la xam tànk ndox tefes. Mhm. xoolal ñu nekkoon mbaaw mu leen géej gi même am ngeen jumaa joo xamante ni sax ci ci ci littoral bi la nekk. waaw mais jumaa jooju jumaa ah. bañ nga ba ne jumaa ak ay nappkat boole si nappkat yi fa nekk gaal yi nga fay romb gisoo fa rek jumaa da nga fay fekk ay gaal waaye waaye ma ma ne euh, Serigne Gueye ba fa ba fa sanc dëkku fa dañ ko def pour ñëpp ku mu neex nga julli fa. d'accord léegi lan mooy ëllëgu littoral bi bu ñu bu ñu bu ñu si jëlul ay matukaay. maanaam lu bari la ñuy ñàkk comme na mu def mbaaw d'abord euh, bu ñu déranger écosystème bi maanaam la fa yàlla defal boppam. Mhm. bu ñu ko laalee. Mhm. géej gi lañuy song. abon ah te bu ñu songee si kaw dëkk bi la jëm si. mais am na ñuy wax loolu pour pourtant. wallaahi day am. wallaahi yàggatul. na mu def mbaaw. def ko yeneen bëgg nangu kër yi. jël kër yi jël cimetière yi jël yëpp wallaahi. même même même boo xoolee ndar tamit lu mel noonu amoon na fa. ndar la gënoon metti te fii lay fii fii la noonu lay def parce que boo laalee suuf si gis nga yàlla lu mu def xam na ko. gis nga suuf soosu mu fa def ak xeer yooyu. Mhm. moo téye géej gi ba du avancé. kon dañuy tooñ yàlla léegi nag dañuy tooñ yàlla. ba pare tooñ waa dëkk bi mhm. xam nga nit. Mhm. non da nga waxal tooñ sénégalais rek. waa tooñ sénégalais yi. maanaam nit bu. bu jël di moomele seen bopp loo xamante ni ñëpp ñoo ko bokk. déedéet ñu amul déedéet déedéet déedéet attention dem ku ko wax xam ne am na borom. mais da ngay stigmatiser. da nga toogee ba émission ba ji ji mhm. ku nekk tu es nit dangay ngay doon li nga doon dama ne. ndakaaru dafa am borom. c'est la culture et la coutume et la tradition lébu mu neex mu naqari dañ ñu ko war a reconnaître jox ñu cër boobu jox ñu respect bëgguñu jaay xel naan ñu ndakaaru ñëpp ko bokk c'est faux ba suñuy maam yi di ñafe seen maam yi fu ñu nekk c'est faux dañu moom ndakaaru ndakaaru dafa am ñu ko liggéey nañ ñu jox cër jox ñu respe nit boo fonkee sa bopp da fonk sa ki nga ja ki nga jàkkaar loolu mais yéen suñuy euh, maam mënuñu liggéey ba ba tey mu doon teraanga ñëpp fii ndakaaru tey ndakaaru tey li mu defar si Sénégal dafa bari nañ ko nangu. man ji li man xame du ma de damay wax dëgg. d'accord léegi Dakar lu mu defar si Sénégal dafa bari. ñu si ku fi bë ku fi bëggul am kër ku fi bëggul am kër fii. d'accord. waaw mais euh, quand même nañu jox cër Ndakaaru ma balaa may dee ñu naan ma Ndakaaru ñëpp ko bokk Ndakaaru Sénégal ñëpp ko bokk. mais ku nekk am na foo jugee. gerte ngi doon gerte tàndarma di doon tàndarma suñuy maam na duñu ñafe xanaa sax boo leen ñu nangul na Ndakaaru ñun suñu maam yee ñaanoon dëkk raw ñoo fi dalal Alaaji Malick dalal fi sëñ Touba dalal fi ñëpp limaamu laay leen mag. ah d' accord te dafa daan nappi. d' accord ngeen bëgg ko léegi diine jiitewuñu si xam-xam wuñu si ñafe wuñu si. fu fu féex gënuñu fa dëkk ba pare ngeen bëgg ko moom si naka waaw d'accord loolu dafa yomb bàyyi ay mag liggéey ba pare nga ñëw ne maa ko moom loolu xoolal bàyyi bu boo xati loolu waay ji li d'accord loolu bu doxaru ma si d'accord euh, jërëjëf il faut nous euh, concéder ça quand jërëjëf euh, Tosané Euh, mbokk yi ñu fàttali yéen a ngi déglu rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi moom nag moo jiite euh, euh, fédération démocratique des écologistes du senegal au niveau de Dakar Tosané xam nga Dakar capitale la yaa ma ko gën a xam te senegal gi yëpp. askan wee moom suñ sénégalais yëpp ñoo ko moom yaa ngi may dégg léegi li ma la doon expliquer sànq dafa da nga wax loo xam ne dafa am solo maanaam géej gi li nga wax ne yàlla xam nga géej gi tamit ci jeexantalu géej goo gis day am ay xeer ak euh, xeer yu demee noonu moo la wax ne mooy téye ndox mi tey est-ce que yow si sa expérience ndax man xam naa ne yow euh, non seulement écologiste nga mais yàgg dangay ngay di dugg si géej ak euh, xeer yu demee noonu sa formation ci loolu nga ko def mais ni ñuy brader littoral bi suñ ko bàyyiwul est-ce que jàpp nga ne bis mën naa ñëw géej gi mer nangu ndakaaru ma wax la benn xam-xam ji li tey nga nga dem vérifier ko gis nga ñu dëkk si booru géej yëpp. Mhm. ku si amoon xaalis di nga daanu gis nga géej dëkk si wetam rek yombul année bu nekk nga tabaxaat miir yi day toj feer bi si biir day day day ruwe day dem ba maxe mais loolu est-ce que du xoromu géej gi géej gi la brise bi la télé day yàqu micro day yàqu téléphone day yàqu ñu bari ñi demoon di bëgg a dëkk booru géej toxu nañu di ko loué te boo ko loué la ko doon loué yëpp di nga ko defaree kër gi par at te booy gis nga nit. lu waral loolu. parce que dañu doon defe ne man maa ngi dëkk booru géej rek dëkk booru géej day fekk nga xam géej xam lu fa war ña dëkk booru géej xam nañ lañ fay def ma ne bëy day ànd àndaxi moore mi bëyam waaw ah, d' accord damaa dégg. Euh, sinon ñu dëxin ko ku damaa dégg damaa dégg benn leader benn leader wax ne ku si mel ni Ousmane Sonko nee na moom tey bu jotoon si réew mi euh, ñi dëkk ci littoral bi yëpp da koy da koy toj maasale ko ndax yow d'accord nga ci loolu. Ousmane Sonko loolu mooy wax il su ko nekkee su nekkee président warul waxee noonu sax dafa war a wax ne bu ma nekkee président dina proposer pour que li nekk si littoral bi li nga xam ne àndul méngoolu lu war a am si littoral bi ñu ñu proposer ñu dindi ko mais waxul. waxu dictateur man dinaa ko dindi d'abord nit booy wootee dara da koy niru doone man bu ma nekkee président naa def lii président c'est pas un roi da naan bu ma nekkee président dinaa proposer loo xam ne li nekk ci littoral bi ñu xool nu ñu koy saafaraal noonu lay kilifa di waxee surtout kilifa boo xam ne da ngay wax pour demee ëllëg man ma am xel toog fii magoo ma gënoo ma dëkk ci dëkk bi ëppoo ma xel ëppaloo ma ci réew mi je m'en xoolal nekkal euh, magistrat nekkal plongeur nekkal pêcheur ñun ñëpp bokk réew mi savoir lire et écrire tu diriges la mairie ou tu diriges la république tout simplement ça d'accord ay ay ay ay comédiens sax ñu ngi diriger ay réew ay cinéastes ñu ngi diriger États-Unis ñun dañu war a am espèce de mënuñu nu nax ñu ngi nax xale yi di leen tardeel di leen gëmloo ne yow technicien de rajo nga mënoo gérer réew mais c'est faux c'est archi faux il faut savoir écrire lire nga nekk député wala nga nekk maire wala nga jiite réew Las Valesa était un électricien un ingénieur en électricité Ronald Reagan était un cinéaste tey réew yooyu ñëw ñëpp doon téeméeri junni yoon ay xale yu ndaw bëgg ñëw fii di naxawaa réew mi yooyu moo war a deñ ñoo tuddee xale yu ndaw mais ñi fi nekk léegi di wax ay xale la par rapport ak l'histoire bi ma lay wax c'est des petits Sonko bu ne bu nekkee président day toj littoral bi o ne parle pas comme ça dans qu'on étudie la une solution pour le littoral. d'accord léegi yow lan ngay wax président Macky Sall ci littoral bi comme moom nga àndal. mais j'appuie sa décision Macky Sall lu mu def je l'appuie mooy décision bi mu jël arrêtons tout ñu xool lépp nan la demee ba pare nag nañu bàyyi xel maître Dundoy di doomu lébu avocat maître Dundoy ah maître Dundoy bi moo gën a xam ñi fiy wax yépp maître dundooy leen c'est un expert en foncier doomu Ndakaaru la di lébu moo leen ko gën a xam téeméeri junni yoon ku fiy jaay xam na wax ku fiy jaay xam-xam rek met dundooy moo mooy moo la mën téeméeri junni yoon ci foncier d'accord di professeur agrégé de l'université grand avocat di doomu ndakaaru ku siy wax li foncier rek du sa morom d'accord mais euh, ñëpp ay doomu ndakaaru lañ euh, bàyyil non xam nga euh, ji doom mais doomu ndar am na man je suis un Sané ñancoo fier d'être un ñancoo roi di Gamou mais l'autre est fier d'être Bour Sine xam nga yow lii ngay wax nii xam nga xam nga yow xam nga lan la ndakaaru daal maanaam mu naal li nga bëgg a wax daal d'accord naa ko finalement dama lay jox raison sax Dakar daal mooy Sénégal. d'accord waaw Dakar daal mooy Sénégal. suñu maam yi loolu na ñaanoon mooy ndakaaru ñëpp bokk ko dëkk raw te loolu fierté waa ndakaaru la mais dama ne mais nit ki xanaa sax saa waay loo loo loo loo loo loo loo bañ bañ nit wala loo loo munti wax ne Sénégal ñoo ko bokk d'accord nañ si. d'accord léegi jërëjëf euh, to ñu ñëw nag. mais xam euh, nga ne du ma dem Fuuta naan dama koy xëccoo. waaw d'accord waaw dañu euh, waxante dëgg. Adama ne danga koy jël. Adama mii nga jàkkaarloo Fuuta la Fuuta la dëkk. waaw dafa am titre foncier. yow bi nga fi toogee ba léegi yaa ngi def mbiru kii. mbiru ñoddi fii ñoddi fii. loolu ñoddi fan man Sané laa sant pour. d'accord léegi yow. Ah, non non non Djily loolu il faut ñu leeral ko xam nga Djily dafa am loo xam ne nañ ko leeral dama ne ndakaaru dafa am borom ñi ko liggéey ñi fi nekk yëpp xam nañ ko mu neex la mu naqari la danaa ko wax ah d'accord dama ne suñ ñi liggéey ndakaaru Sénégal yëpp leen amal njukkal d'accord léegi euh, ñu ñëw euh, ci seen commune boobu noonu dafa am benn coow boo xamante ni juddu woon na fa ba gis nañ yow nga wax ci mbiru deux cent millions yoo xamante ni tey Bamba dañ doon wax ne daf ko bëggoon euh, pour jot si Euh, pour mairie bi ji euh, trésor mbir mi am ay conseils yoo xamante ni dañ koo gàntal euh, ci mairie bu Médina ndax mën nga ñu si indi ay leeral. non du du du waxu rek deux cent millions demul noonu y avait un cent cent dix millions boo xam ne maire daf ko proposer délibération pour génn ko pour def ko si Covid bi am beneen somme boo xam ne daf ko bëggoon proposer génn ko pour def ko des travaux dans les écoles am conseil yu ne ko. d' abord premier conseil municipal bi délibéra kii bi réunion boobu y avait pas le quorum ñu saisir sous-préfet sous-préfet ne leen ne maire par écrit il faut convoquer encore le conseil municipal boobu mooy premier problème deuxième man je suis membre du euh, comité de ciblage bu communal te loolu texte état moo ñu fa teg ma wane ko monsieur le maire en réunion Seydou Gueye ngi toog monsieur le maire les dix-huit conseils là parmi lesquels il y a notre conseiller Mam Diallo conseiller écologiste convoque les 18 encore la nga mën ak ñoom xam naa ko la nga séq ak ñoom xam naa ko soo bëggee wax ak ñoom mun nga wax ak ñoom yaa xam da leen di woo au officiellement ou d'une manière informelle mais soo bëggee wax ak ñoom di nga wax ak ñoom woo leen nga waxtaan ak ñoom il l'a pa fait et hier pas plus tard que hier dans la cérémonie, ce que je, bon, dis, je dis solennellement que je le regrette, j'aurais souhaité que Seydou Gueye, quand je l'ai dit en réunion de, com de, de comité de ciblage, qu'il appuie ma position, mais non pas le dire en public, dans une cérémonie publique avec la presse, tout le monde. Bamba, il faut aller voir les 18. Il l'a dit hier. Et moi, je, Seydou Gueye oui moi je le dis ça fait trois semaines ça fait deux mois. mais est-ce que Seydou Gueye jugu si jëmu euh, jublu si tamit euh, euh, indil ay ay ay Binki Ñank yàqal Bamba tuuti. no non non Seydou moom Bamba fu mu ne nii moom comme ñoom ñaar ay partenaires lañu actuellement. sa léegi mais mais mais Seydou Gueye Bamba Fall da doon attaqué. waaw waaw mais parce que pour moom. dafa ne préfet daf koy xeex moi-même je je je je à Seydou Gueye je lui ai envoyé en plus un message je lui ai monsieur le ministre il faut qu'on invite Bamba à se conformer aux recommandations du sous-préfet le préfet s'il se s'il se réfère pas au texte préfet mënul bloquer Bamba c'est pas possible préfet mënul bloquer maire su dul si texte yi ay conseil ñoo ko saisir mu conformer aussi article yi bloqué li muy bloqué loolu la noonu lan moo tax ñu bloqué xaalis mais d'abord première réunion bi moo dañu ne quorum amul deuxième réunion bi Bamba dafa dañ ko ne avec l'ordonnance du président Macky Sall les maires peuvent convoquer le bureau municipal pour délibérer mais moom dafa def si convocation yi élargie aux commissions. Bamba oui. Mm-hmm. man bi ñu ma wanee convocation bi laa ne lii brèche la. brèche cest à parce que dix huit conseils yi nga xam ne ñoo àndul si première réunion bi. Mhm. am na si beaucoup de présidents de commission ku mel ni Gorgui Diop. qui est délégué de marché Tilène vice-président des chambres de métiers. Mmh, d'accord qui est président de l'association des couturiers du Sénégal. il est président de la commission à marché marchés. Gorgui ba mu gisee convocation bi dafa ne il est concerné. képp kuy président de commission da nga ne tu concerné. Mhm. léegi nag ba ñu ñëwee si réunion bi ñu ne leen doo dugg. parce que ah. ñi ñuy woo mooy bureau bi président commission sécurité président commission sociale président commission santé ñooñu le maire jox convocation mais convocation bi mu jox Martin Samb adjoint au maire dañu ci def allège commission mu wan ko 18 yi 18 ne ah comme ñun am na si ay président commission il faut ñu teew mais quand on a été en réunion mhm. toujours devant l'assistance devant tout le monde j'ai dit à monsieur le maire monsieur le maire votre intention elle est bonne sa xalaat rafet na mooy nga ñu nga am droit convoquer que bureau municipal bi pour délibérer nga élargir ko à des commissions te commission bi du ñu bokk si délibération ñoom dañuy ñëw rek nga waxtaan ak ñoom après ñu dem ngeen doog a voter seen biir mais da nga ko élargir commission yooyu ma la cité ma ne ko c'est l'intention elle est bonne mais du point de vue administratif vous avez écrit élargi aux commissions sans précision il fallait préciser commission santé commission Euh, éducation et cetera et cetera ñi nga xam ne Covid bi ñoom la concerné mais ça a été pas ça n'a pas été précisé et c'est l'administration l'administration elle est écrite. d'accord kon ba léegi nii euh, xaalis génnoon. non xaalis génnoon. te pourtant gis nañ euh, mairie yu bari yoo xamante ni ñoom lijjanti nañ xaalis même bañ a xaar li nga xamante ni moo jógee ci. mais moom la Bamba def mairie bi moom lañ def wax naa ko démb ba le parole nee naa ko monsieur le maire on n'a pas attendu le président la République pour et ça on le doit à votre conseil municipal et à vous félicitations. léegi. Euh, après aussi le président de la République qui a fait un acte magnifique parce que jox ay kit de soixante six mille à beaucoup de familles neuf mille familles ça vraiment c'est à saluer. Euh, même c'est mais loolu c'est à saluer mais loolu euh, lan lañ ci saluer président. xaalis boo xamante ni tey. xaalisu askan wi la. waaw non seulement jox nañ leen soixante neuf milliards pour ñu soixante neuf milliards xam ne. Euh, kenn xamul nu mu toll ci xaalis ba léegi ni mënuñoo séddale dund gi askan si war a jot yëpp jot si xam nga man côté boobu du ma waxee noonu gis nga waxu yooyu du ma ko wax dund bi ñu ngi koy gis ba démb Medina ñëw na tey rek maa ngi romb gis gars yi ñu yóbbu seen i puus-puus gars yi bu ñu ma sonal di ma bëgg man du ma dugg si yooyu man du ma naafiq bamba ba mu saxalee garab ak maire bi dama ne ko saxal nga ay garab maa ngi koy gis def nga pavage maa ngi koy gis ku mu neex ku mu naqari maa ko wax la Médina elle est mais mais euh, ceeb bii laa la wax. waaye ceeb bi Mansour Faye mi ngi koy Mansour Faye mi koy joxe. mais eh. bëri na yoo xamante ni bëri na euh, gox yoo xamante ni ceeb bi. egg yow gisoo déggoo ko déggoo ko Tiwaawan ceeb bi. Tiwaawan man lu déggu ma ko Tiwaawan nu ma koy déggee. Tiwaawan déggoo ko Touba. mais euh, Touba waaw dama ne déglu ma dégg naa ko Touba mais ceeb bi dañ ko faa stocké ma nga fa commencé nañ ko joxe mais dafa des pâtes yu baree baree bare ay warmasel ay macaroni. ñun xam nga lu ñu def fii Médina non mais au niveau. na au niveau non waaw non dama lay jox euh, ba mu desee parce que président bu ne gouvernement bu ne dañuy joxe ay kit yoo xam ne soixante six mille la lii lay àndal lay àndal ñun dañ ko xaar ba mu desee suukar ak dañ ko xaar mu ñëw ñu doog ko joxe parce que dara waru si manqué. mais dafa yéex. waaw yéex na mais mais néanmoins aujourd'hui kenn waxatu ko ñu ngi koy jot. mais est-ce que gisoo si ak lajjite aussi. lajjite état moo koy gérer de. c'est-à-dire état mu ngi koy gérer comité yi si quartier yi euh, ay président délégué de quartier yi ñoo ko gérer ay bàjjenu gox yeex conseil municipaux yi ñoo ko gérer ñun ñu nekk les partis politiques et autres conseils municipaux nekk si kaw communal communale yi lajjate bu si amee euh, dafa neex euh, président comité quartier yi. lajjate bu si amee mais du du ci ministre bi. déedéet lajjate bu si amee dafa neex baadoola yi ministre bi tamit ak ay fournisseurs am peut-être ñi nga xam ne dañu waroon livrer livrer wuñu et cetera et cetera du dugg si loolu l'intention elle dëkk yu bari jot nañu ñun Medina démb la ñu commencé di joxe ak tey démb jox nañ Sànneer ak Jubaltaax tey ñu ngi si biir. mais loo xam ne ba nga ko waree joxe ak léegi presque plus de deux mois et quelques. mais xaaruñu ko nag man mi joxe naa sept cent cinquante mille ceeb au nom des écologistes sept cent cinquante mille riz laa joxe au nom des écologistes waa Cër ñu may dëgg waa Santé nag may dëgg Bamba wax na leen ko démb Cheikh Ba ñaata la joxe. d' accord Seydou ñaata la joxe. d' accord li euh, waaw ñun xaaruñu woon tamit joxe nañu. d' accord léegi euh, li nga xamante ne boole si une société civile ak ay personnes de bonne volonté jël nañu seeni i milliards yow dégg nga ko xalif général des Mourides jëkk jël deux cent millions dugal si. kon loolu bu ñu bu quand même nit ki xam nga tamit ñu ngi wax état état te li nga wax la suñu xaalis la. mais nañu wax ñi nga xam ne ñoo jël xaalisu askan bi nga xam ne du xaalisu état jox ko. d'accord léegi euh, li nga xamante ni mooy 1000 milliards yi yow lan moo ci sa xalaat 1000 milliards yi nga xamante ni moom la bëgg a saafara ay jafe-jafe yu yu baree baree bari. mooy def si li ñu wax jàppale les entreprises qui sont en faillite parce que restaurants yi doxatuñu hôtels yi doxatuñu transport doxatu ñu si bari seen liggéey gaare na il faut dire la vérité loolu yow xam nga ko man xam naa ko. d' accord euh, dañu nemmee ko président Macky Sall bi mu waxee vivre avec le virus gis nañ ne sénégalais yu baree bari dañoo bàyyeeku te fii ci Dakar tamit euh, wopp ji ma ngi fii gën di law chaque jour bu ñu xëyee ñu nañu euh, quatre décès wala trois décès. non wopp ci si Dakar noonu responsable yu bari ñu si bari am nañ si responsabilité parce que bu waa dakaar ne nii la ñuy def ñëpp si war a ànd jàppale waa Dakar. ñan ñoo tuddee waa ñoo ñoo tuddee waa Dakar. waaw non ñii dëkk Dakar yow du Dakar nga bu ñu ne ndakaaru jiili solal masque nga sol masque jiili bul génn heure bi bul génn mais bu ñu nee bul kenn génn nga jógee Casamance jël sa oto ñëw dugg si kii jógee Jurbel jël otoom ñëw dugg si kii jógee Saint-Louis jël otoom ñëw dugg si te nañ ne bu kenn dugg bu kenn dem bàyyi leen ngénte yi bàyyi leen takk yi tëj leen jumaa yi tëj leen église yi ku ne damay def lu ma neex. loolu responsabilité nguur guy def. déedéet nguur munu si dara état mënu yaafus ko nguur munu déedéet. l' état je le toujours, un appareil organique structuré reconnu sur lequel tout pouvoir a besoin d'exercer son autorité peuple bi lañ fi nekkal ñoom nee nañ dañuy julli ji ok dem leen julli ji. mais état doxee noonu nag. lan nga bëgg mu jël ay armam génn ko. déedéet lu doxee noon lan nga bëgg ñu def ñu jël suñuy militaire génne. déedéet ak police. déedéet état bi euh, réew dafa. am réew dafa am aw yoon. rigueur waaw non réew dafa am yoon. waaw yoon am ay loi mooy lan. soo defee naka su noon waaw euh, yoon dafay dal sa kaw. lu feesal prison yi. yoon buy dal si kaw la. waaw lan moo tax premier jour bi nga gis ñu jàpp gars naan policiers di dañuy dóore man dama man loolu ànduma si. léegi léegi gis ñu jàpp leen di leen dóor. non léegi euh, feebar bi ni mu lawee nii euh, bàyyeeku gi sénégalais yi bare bàyyeeku. Euh, est-ce que jógewul ci kàddu yi président waxoon ne. non vivre avec le est est message boobu dañ ko dese expliquer. Sénégalais waaw peut-être ça waaw peut parce que maa ngi ko doon wax euh, maire waxtaan nañ ci réunion aussi devant le le médecin du district de santé de Médina. avec les conseillers et autres délégués de quartier wax naa ko ma ne ko monsieur le maire je pense que le président quand il a dit vivre avec le virus les gens l'ont mal compris vivre avec le virus comme day mel ni daal ñu bàyyi virus bi duggu ñu parce que am na ñu naan virus bi lu mu gën a dugg dooleem di gën a wàññeeku mais je pense que il aurait dû l'expliquer plus clairement mooy vivre avec le virus mooy munu ñu hôtel yi dëkk si tëj pour dispensaires yi tëj euh, tëj liggéeyukaay yéex yëpp mënuñu si dëkk mënuñu si dëkk tëj arrêté transport bi maintenant vivons avec le virus maanaam mais néanmoins mooy ñu vivons avec le virus mooy ñu jël ay précautions respecter distance yi di sol ay masques di raxasu il aurait dû l'expliquer plus clairement mais lan moo waral ñu bari gëmuñu jàng feebar bi mais parce que bon am na ñoo xam ne amuñu. est-ce que du si communication bi. bon non communication bi soxlawul Sénégal di communiquer pour loolu. mais est-ce que mënuñoo def communication euh, communication communautaire maanaam. Euh, maanaam tey. communication communautaire am na. maanaam tey par exemple tey xam nga askan bu nekk ak ni ñuy communiquer ak ñoom tey Sénégal yi tey bu ñu leen doon wan euh, ñi nekk ci hôpitaux yi tëdd ndax fi ne nii feebar bi ku amul mbokk moom dal mën nañoo wax ne presque doo ko gëm. mais dama ne dafa am ñoo xam ne xam nga lu metti Sénégal ku am mbokk mu dal da nga koy nëbb d'abord. wala nga bañ ko erreur bu mag lu dal prince Angleterre le prince héritier d'Angleterre lu dal le prince de Monaco lu dal premier ministre Iran lu dal ay euh, le le vice premier ministre je sais pas le vice président des États-Unis ou un des collaborateurs de de Donald Trump loo xam ne mi ngi lar ay milliers de personnes Amérique dinañ tëj seen port tëj seen aéroport ndax Sénégal France Europe dinañ tëj seen aéroport port ndax Sénégal ñooñ dañu am jot boobu xalif général des mourides dina toog ne leen coronavirus baa ngi fi moytu leen def leen di ndax lu neex ma sàmba wala ma demba kon nit ñi kan moo mun a wax ak ñoom ñu dégg dëgër bopp rek tëtu dëgër bopp ay nit yu dëgër bopp la ñu ba pare dañu nar a lor ñëpp c'est des gens têtus kilifa yi waroon wax wax nañu bàjjenu gox yi wax nañu président yi wax nañu service santé am na ñu ne sax booy dem màkk tey. bu la docteur bi ne doo mun a dem dañ lay daa du da def visite médicale mhm. bu docteur bi ne doo dem doo dem mhm. booy dem Vatican bu docteur bi ne doo dem doo dem mhm. waa lu tax docteur bi ne la moytu leen bu leen def lii bu leen def lii ñu dëgër bopp naan amul amul wax bu yàqu la ku la wax viru coronavirus amul day wax lu ko neex te dañu xam nga lan la ñooñu sax dañu finalement xam nga lan la dañuy mel ni ay criminel ñooy bokk si ñuy lor nit ñi ñooy bokk si ñuy rey nit ñi parce que nit boo boo si àndul sax mais respectel li nga xam ne nit ñi ànd nañ si ba pare loolu Sénégal lu muy représenter si monde bi dul suñu dignité suñu honneur suñu personnalité du xaalis mënuñu ko jaay kenn du développement munuñu ko fi jaay kenn du Amérique lañ koy jaay du Europe lañ koy jaay waaw bu dee dëkk yooyu yëpp ñoo tëj seeni frontières tëj seeni aéroport yow lu yow aéroport avion compagnie aviation yi compagnie maritime yi ban intérêt la ñu am tëj seeni emploi tëj lépp bloqué lépp ay milliers de personnes di dee yow nga ne loolu amul xam nga loolu mooy asamaan saa ngi nii nga ne gisoo ko kooku dof-dof lu loolu. léegi est-ce que euh, mbir mi mënul am beneen tournure ci Sénégal fi bàyyee ko gi ndax gis nañ ne kaa euh, yaa ngi gën. ma wax la benn affaire dañuy xëy di dee comme ay mouche comme ay weñ gars yi naan woy noo waxuñu woon lu leer xamuñu woon. booba responsable état la nag. non état lu mu état def na lu mu war a def lépp wax dëgg yàlla état chef religieux yi ba si Pape Malick ndeysaan maa ngi ko gis ñuy koy wane benn télé mu yor gel bi naan leen def leen nii xalif général gis nga ku dugg murit ku dugg si jumaa ji ñu ne la defal lii defal lii distance respecter sa xalif muy murit muy ti euh, diine bi def nañ seen warugar politique yi def nañ seen warugar euh, parlementaires yi def nañ seen warugar artistes yi def nañ seen warugar yéen journalistes yi jokkoo njal yéen liggéey bi si ëpp solo yéen a ko def ku fi déggul danga danga da bëgg a def lu la neex rek. léegi euh, le président bi ñu quarantaine nag ndax loolu jàpp nga ne tey indiwul euh, gàllankoor tey ci poste premier ministre bi ñu dindi ak euh, ñi nga xam ne ñooy entourage su président yor sécurité am nan lañ mën a fexee bam bam jege yantoo ko corona bañ koy. bañ koy président président c'est pas parce que il est en quarantaine que l'État ne fonctionne pas poste premier ministre dindi nañ ko nañ ko jàppee noonu. président qui est en quarantaine l'État continue à fonctionner. mais quarantaine comme ministre de l'intérieur quarantaine. mais comme ministre de la justice même si on le quarante si il est en quarantaine il continue la république en quarantaine loolu. la république en quarantaine même ça fonctionne. les conseils de ministres partout dans le monde se font à distance. les réunions même au niveau planétaire international l'ONU G15. ñoom ñëpp G8 ñoom ñëpp les réunions se jërëjëf euh, jërëjëf euh, Tho Sané maa ngi lay sant di jot na. voilà ñoo ngi lay sant jërëjëf Faye. maa 30 euh, secondes. oui nga tàggoo 30 secondes. waaw maa lay gërëm bon vraiment tey moom yëngal nga ma ko parce que bëggu ma woon wax nii mais quand pour wax ne rek na nit ñi moytu xam ne feebar bi surtout coronavirus bi mi ngi fii lu lëmbee adduna bi yëpp la rey ay milliers de morts. Mm-hmm. paralyser économie mondiale te ba léegi kenn amul garabam. Mm-hmm. kenn mënu ko faj. Mm-hmm. kon na nañu fexe xam ne rek metti na tamit si ñi nga xam ne ñoo yor transport wala yenn secteurs yi metti na lool. mais ñu xam ne rek nattu boo xam ne la yàlla moo ñu ko teg. te yàlla dafa ne inna allaha ma sabirin soo leen munee maa ngi seen wet noonu nañu nangu ne yàlla moo ko def amaguñu jàng euh, saafara bi na kilifa yi ñaan gouvernement yi góor góorlu ñu fexe ba nga xam ne feebar bi dina fi jóge bu dee wax naa nag loo xam ne nul maa ngi jégalu mhm. bu dee wax naa loo xam ne tamit am na ñu mu neexul wala yooyu maa ngi jégalu di leen remercier si invitation bi jërëjëf euh, To Sané mbokk yi moom moo jiite fédération démocratique des écologistes du Sénégal ci Dakar euh, Aliou Aïdar nag moo nekk ci bopp bi moom la ñu woon tey Abdou Khadre moo nekkoon si kàddu gi Adama Diallo ci wàllu technique bi yéen a ngi déglu rajo Rewmi FM jërë ngeen jëf jàmm jàmm